bismillaahi rahmaani rahiim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxna wa asbaxal mulku lillaah walhamdulillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar allaahumma innaa nasaluka xayra maa fii haadal yawm wa xayra maa ba'd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 ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ciraanga ak poche def dara at maa ngi dem yàlla ñu fi bàyyi bu jël si yàlla ñu fi fekk dem ma yëkkati jotaay bi loolu si la maa ngi tolloon ci tomb ñetteel ci waxtaan wi muy ixtilaafu turuq lu tax tarixa yi wuute tarixa yi lu tax ñu wuute wuute ci kii seen jawrin di sallallahu alayhi wa sallam ci al imaamul Ghazali ca njàngale ma radiyallahu anhu wuute ci boroom xam-xam yi jiitu woon yépp te doon bind ci tomb bi ñu nekk wuute ci wuute ci seen jàng yi waaye dañoo wuute woon ci kenn ku ne bi ngay liggéeye millier bi ngay defare nit milieu bi ngay forme centre bi ngay former ñi ngay forme ñan lañ loolu moo tax kiy forme ci barab sàngam dafa am lu muy aajowoo daanañ ci waxtaan léeg-léeg maag docteur Ablaye Lam amiru jamaati ba Abdurahman Sam ñu waxtaan maag moom Sam ci wàllu euh, iji ijtihaad ci tarbiya ijtihaad ci fiq ila axiri ila axiri waaye xam nga ki ki ne ci am pénc xam leen moo leen di mën a defal formation mag ñi nag yàlla dafa leen mayoon loolu waaw ña nekk ak ña nekk kajoor ña nekk ak ña nekk bawal ña nekk ak ña nekk siin ñu nekk ak ña nekk saalum ilaa axiri ilaa axiri ku ci nekk ma ne qad yasluku baadul mashaayix tariqat shidda fi tarbiyati al muridina fa yaxuzunahum bi riyaadiyaat al anifa loolu léeg-léeg cheikh bi mooy xam ñim àndal alayhi salaatu wasalaam soo seetloo daf daan jékki-jékki mu ne saxaaba sàngam del def nàngam saxaaba sàngam del wax nàngam waaw dégg ngeen saxaaba boobu ne del naaf del safa witar door a tëdd ak saxaaba boobu ne del tëdd ba jóg door a safa witar te contradiction amut ku ci ne daa xam kii def na ko del safa witar door a tëdd parce que xam na ne moom ay nelawam a ko moom kii mu ne ko del tëdd ba ci kanam nga jóg dër suba witar ndax dafa xam ne kii moom moom moom ay nelawam ku say nelaw moom boo tëddee bi dënti ku moom say nelaw heure bu la neexee jóg loolu la xàmmee woon ci saaba yi moo tax ñii seen taalibe yi dañ leen daan defal entraînement yu métti ndax xam ñii ñooy ñaan ak fi ñu nekk ñu leen sant koor gu bari koor gu bari buñ ci jógee di leen sant néewi nelaw néewi nelaw ndax koor gu bari géeg néewi nelaw yi daa am la muy def cib taalibe waaw sumtun wa joun tawilun baadahu saharun ila axiri ba noppi tàmmal leen bari looy wéet waaw kasratul xalwa bari looy wéet waaw ndax wéetaay day jural nit ki xalaat te xalaat day yéege nit ki ci ay maqaama te ku ku jaxasoog nit ñi ah, nit ñi wàll la ni ñu mel ma ne korona doon na ko jàngale ñu jëkki-jëkki di aaya ndaje yi di aaya ndaje yi waaye gis nga virus boobu doon ko toon nga xam ne bu ndaje jotee mën a toxoo ci ki ki ko am dem ci ki ko amut jikko yi it noonu lañu mel koy def ndaje mu nekk nga ne ci biir ndaje ma bët bu set yàgg nit ñi léegi te nit ñi mooñaat la nga mel nu bokkut ak na nga meloon mbaa nga yëg lu bokkut ak la nga yëgoon mbaa nga am doful imaan nga am doful imaan danañ ci ñëw moom tam ci ay tomb xay na ci tomb ni sunu kanam euh, kooku kenn la beneen sëriñ bi beneen sëriñ bi te mooy bu ñaaral bi xad yasluku baadul masaayiq tariqatal liin fi tarbiyatil muridin fa yaamuruunahum bi mumaarasati cheyin min alsiyaam wa xiyaami miqdaar min alleyli wa kasrati dikr walakin laa yulzimunahum bil xalwa wal ibtaad an innaas illa qalila ku ko mooy deuxième bi mooy sëriñ boo xam ne ni muy forme ay taalibeem bokkut ak ku njëkk ki ma wax ki moom ci nooy lay def kee dafa dafa dëgëral kii nag daa nooyal buy digle koor tuuti lay digle koor waaw koor gi defar bakkan moom tuuti la luñ ci digal waaw bu fi bu fekkee xiyaamu layli la tuuti la luñ ci digal bu dee zikr la wird bu neexa def la leen di jox du leen forcer ci nañuy wéet bitaay bu bari du leen forcer ci nañu sori nit ñi bu ko dee defit tuuti la leen koy def waaw waaye moom du du du ànd ak ñoom ci genn mitital gi kooku mooy euh, bu ñaareel bi moom itam ku am solo la ndax léeg-léeg pénc mi am na ñoo xam ne loolu lañuy laaj bu ñetteel bi am na koo xam ne ki euh, du dangal du nooyal ci diggante bi la nekk wa min al mashayiq man yattaxisu tariqatan wusta bayna shiddati wal liin fi tarbiyatil muridin waaw tomb la bu Oustaz Ndiogou Samb bëgg ñu ngi koy jaale ñi mu fi wàññiku la ñépp tabarkalla muy alwasatiya waaw sëriñ bi moom muy bu troisième bi du daŋal du nooyal mu ngi ci diggante dangal ak nooyal alwasatiya waaw équilibre du du métti du du méttital yi waaye du ko nooyal ci diggante bi lay nekk boobu tam lu baax la boobu tam lu baax la waaw waaye tabarkàlla lu am am solo la e, tariqa yi nag ci ñeenteelu tomb bi ku ci nekk am nga luñ lay ràññee ku ci nekk am nga luñ lay ràññee léeg-léeg lu ñu wuute wuute am na yoo xam ne ñoo ko bokk lu ñu wuute wuute am na yoo xam ne ñoom ñépp ñoo ko bokk waaye këy liggéey ca groupe sàngam ca région sàngam bokkut ak boo demoon barab sàngam na ko fay liggéeyee léeg-léeg wax ko xaaj Mbàkke mu jóge ci jotaay bi sànq ne ko bu ñu santee nit conférence l'islam ak économie walla lislaam ak guerre ñu sant ko ko quartier sàngam buñ ko ko santaatee quartier sàngam mu développé ko ci benn anam li muy tekki mooy mën naa ñàkk dégg seen pénc ma pénc mu nekk message bañ cay yor waaw pénc mu nekk message bañ cay yor euh, pénc mi walla bokk tarixa yi ku ci am gan goo xam ne dangaa bees ñëw ci tarixa bi doo def ni politiciens yi def mitingal ko waaye nag mbëgte lay doon mbégte lay doon ndax ñee dañ koy mitingal parce que jóge na ci fenn ñëw fii ñi nag duñ ko mitingal ndax yëg nañ ne ki jóge cib tariqa ñëw cib tariqa ba tey mi ngi ci biir lislaam mu ngi ci biir lislaam ki jóge ki jóge foo xam ne fii du benn tarixa nag ba ñëw kooku nag moom dañ koy sargal ndax moom gan la waaw waaye ba may firil oustaz Abou Taha Mouhamad Gueye bu oustaz Alioune Gueye ma la ca cene ba ba ma koy firil xujuraat <laughs> loolu laa ko waxoon waaw al xujuraat ma ne ko kër gi dafa bari ay néeg waaye néeg yépp leen njaati gi lañ am yonent bi aleyhi salaam ma ne ko loolu tax saar yu bari bëri yaa ayyuhallaziina aamanu ndax day wax yaa ayyuhallaziina aamanu kaay leen ndékki ñu ndékki ba noppi ku ne delluwaat néegam fil xujuraati yaa ayyuhallaziina aamanu kaay leen añ seetit <laughs> ñëpp dugg seen néeg suma mbokk mu Moustapha Sylla la ca la ca la fekk woon na ko keroog ndeysaan yàlla yàlla sàmm leen gaa jàmbaar lañ te baax waaye ala kulli xaal eh, gan gi ñëw ci ab tarixa te jóge ci mbooy gi walla jóge ci foo xam ne fii du woon lislaam lu laa bëgg a wax gan googu niñ koy gàttandoo bokkut ku jóge ci tarixa ñëw ci beneen waaw kooku moom dafa jóge ci néeg bi dugg ci néeg bi rek tabarakallahu moo tax eh, daawul deme lu ëpp waaw mag ñeet daaw ñu propagande nag nit ku ne ca fee pour mu ñëw fii déedéet ñoom daaw ñu propagande noonu kenn ku nekk daal fi nga gis sa bopp bàyyi nañ la nga dem fa fi nga gis sa bopp ndax ku ne ci ñetti yi limoon sànq ak penc yi ku ci nekk ak fi ngay gis sa bopp waaw ak fi ngay gis sa bopp yàlla na yàlla fayal ñu leen yàlla na yàlla leen fayal tuubaali abdin muridin la lahum bi xidmatin yàlla ñu yàlla xeer ci xidmaal leen aw bi xubbin yàlla ñu yàlla xeer ci bëgg leen aw hadiyaati yàlla ñu yàlla def nu lu ñu am jox leen wala lu ñu am domp ci lu am solo jox leen eh, ñoo niroo it ñoo niroo it marxala shaaqa min al xalwa wa salaati wa siyaam loolu ñoo ko niroole mooy nit ki buñ bëggee mu àgg ca yàlla wala buñ bëggee muy def rafet wala buñ bëggee ay jikkoom baax jikkoom yi baax la mu tàggale kook moom ah fokk mu am marxala boo xam ne bii nag marxala riyaadiya lay doon bu am solo moo waraloon daara di am nga dem ca daara ja xëy yalwaani nga dem ca daara ja ñu duma la nga dem ca daara ja ñu jëng la waaw takk say tànk marxala shaqa waaw waaye ñaare boo jóge ca daara boo ñëwee danga nga ci jële ak doylu hmm. da nga ci jële ak njàmbaar danga nga ci jële wóolu sa bopp waaw wóolu sa bopp ba mën a xëy rek départ zéro arrivé cent waaw lu am solo la eh, daanañu def it ñoom tarixa yépp joxe wérd waaw joxe wérd waaye joxe xarakaat badaniya muxtalifa maanaam fexe ba nit ki moom aw yaramam te aw yaramam du ko moom ñoom lu lañ daan def seen taalibe dañuy fexe ba taalibe bi moom aw yaramam taalibe bi moom aw yaramam bu bëggee naafila dana naafila su su yaram wi xiifee te lekkutal dara parce que moom moom aw yaramam ki aw yaramam moom nag léeg-léeg jóg sax jóg sax da koy të ki aw yaramam moom jóg da koy të dem ca jàkka ja da koy të julli ca mbooloo ma da koy të ndax lan aw yaramam moo ko moom waaye ki moom aw yaramam te mag ñi daan ko defal formation ba mën a moom aw yaramam moo tax daañu ko daañu ko daan sant ay wird boo xëyee wirdal nàngam waaw bu ngoonee wirdal nàngam lañ daan sant waaw tàmbalee ca ña yor wasifa tàmbalee ca ñor al awraad xeeti wasifa yépp ñu koy jox taalibe yi bañ xëy bokk ñu gën ci pécc bi ndeysaan yàlla yàlla fayal ñu leen xarakaat badani yi ca la dem tool bokkoon ca la taxani bokkoon ca la wuti buy bokkoon ca la wuti matt bokkoon danay wax ne sunu góor gi gu alxaaji màggat jëy ca kub-kub ndek yooyu mu ñu daan defloo dafa ñu daan jàngal euh, kër ya métier waaw kër ya métier soxna ya ñoom yaa may faal ndeysaan ñoom yaa ngedde <laughs> ñoom yaa roqee soxna yi ndekete ñoom ñoo doonoon yaay daar yi di togg di yàkk rek ndax booba dongo ya bëri nañ waaw dongo ya bëri nañ te amoon na ci ñett ñu sant ndaw <laughs> est-ce que du imaam lay ndaw sax waaye daal amoon na ci ñett ñu sant ndaw waaye dongo ya jigéen ñi ñoo féete loolu waaye nun saabu saa bu sëriñ bi xëyee daanañu sant def leen nangam waaw tabarkàlla eh, léeg-léeg ma li suñu jotaay bu ñu mas a am maag Boubacar Diallo yal na ko yàlla yokk wér i i rajo je pense que foofu la nekk léegi i rajo ñu doon waxtaan ci alayhi salaam ak wutal métier ndaw ñi fekk sunu ndaw ñi ñu ngi wax ci liggéeyu ndaw ñi ma doon ko nettali bi sallallahu alayhi sallam di keryal kenn méccam taxan waa ji daa ñëw ci jàkk ji di jàmbat ne dafa am ordonnance bu doon tey ndax pénc bi léegi loolu lañuy wax dama am ordonnance am na ku ma ko ma sox ndeysaan mu ne ko indi ma jëndale la ko <laughs> ñoo ngi ci deux mille deux mille vingt mu indil ma ordonnance boo xam ne bi euh, euh, kañ laa tiwaay quatre-vingt-dix-neuf ko ah sa ordonnance bi yàgg na li ndeysaan ñu tàmbali werante wa waaw waaye bi waa ji jàmbateen dafa bëgg ordonnance yoon bi alayhi salaatu salaam mi yàlla yónni woon te mën a kër yi métier toog di xool waa am ku teg ca loxo ba am ku teg ca loxo ba am ku teg ca loxo ba te alayhi salaatu salaam xam na ne ku ñeenti saaba sarax nga am loo reere ñun kay ngay ñëw ci jàkk ji fanweeri nit ak juróom-ñett sarax la te doo am kilo ceeb <laughs> yàlla nu yàlla yërëm yàlla nu yàlla yërëm waaye saaba yi moom ku mas a yalwaan ci ñoom fu la ñett saraxe ñett nga am lu faj sa soxla loolu itam lu jar a xel la ci affaire bi waaye dama na ñun fanweeri nit ak juróom-ñett mën nañ laa sarax mhm. te doo am lu suukar baraado sullatu min al awalina wa xalilu min al axirina waaw waaw sëriñ Cheikh radiallahu taala <laughs> mbokk ma def na ko waaw lu tax nga jafee gis <laughs> loolu la ko laajoon lu tax nga jafee gis mu ne ko monte nëbbutuuma de mu ne ko ah, yomboo gis de mu ne ko damaa ñaan sama borom ku ma gis sa aajo faju <laughs> te kuy def ku la gis ku bëgg ku la gis aajoom faju bu la ñëppee gis penc mi yàqu waaye na ko ndaxam wax nga dëgg de waaw Serigne Cheikh bu ma sànni dugg ci taxi bu wàccee borom taxi ba jëndib taxi ndax jël taxi mu wàcce la nga takku million jox ko loolu dul gën a xam ndeysaan sama xarit ba kama daan àbb sama sikkim bi Pape Malick radiyallahu taala anhu xam naa oto bii moo ko moom de bariwutoo ndegam am na ko waaw taxi rek <laughs> taxi rek ndeysaan waaye bu wàccee taxi bi <laughs> ne la bokk cinq cent mille wala un million gis nga loolu waa jii di yàlla yalwaan ci jàkka yonent bi daa xam ne juróomi saaba ku ñu sarax nga am loo loo loo loo reere moo tax juróom sarax ko rek yonent bi woo ko ne ko ma xool li nga yor mu jox mu ne ko jógal fii mu jóg ko muy dara mu ne ko ah, yonent bi laaj ko am nga jabar mu ne ko waaw mu xaaj lam yor ñetti xaaj jox ko benn ba ne ko yët ko ndeysaan daal di fa benn ba ne ko defal ci sa poos bi ci des mu xaaj ko ñaari xaaj buum ak jaasi jox ko nag ne ko demal taxani fii ba al alxames moo la gis ci dëkk bi muy taxan di jóor di taxan di jóor ba bis ba dellu si aleyhi salaam daal di koy wutal marché ci saaba yi àll yu njëgu ñaata nga bëgg ci matt bi Omar njëgu ñaata diw njëgu ñaata bañ jënd matt ma mu ne ko bis baa taxani waatal te lii bu dakkati sëriñ si dañuy defal loolu taalibe yi waaw tubarkàlla bokk na ci liñ niroo la ñoom tarixa yi gëm giñ gëm ne am na force boo xam ne moo téye àdduna force boobu ku teel sa cumbukaay doo bare bañ daan la ñooñ tariqa gëm loolu waaw alquwa force boo xam ne force bu bu nëbbutu boobu nag dafa nëbbutu mi ngi feeñ wa boobu kum teel sa doo bëre ba daanu moo tax mag ñi biñ gëmee force boobu ragaluñu tubaab déedéet ragaluñu tubaab bu fekkoon pénc mi du péncum aada ñu joxe ci misaal ay péncum aada moo xam ne boo misaalee rek la alxuraan waxoon waaw yàlla di misaal ci yoo waaw sunu borom ne waaw inna allaha laa yadri an laa yastaxyi an yadriba masalan maa ba'uda fa maa fawqaha mais misaal am na ñoo xam ne bu ñu ko déggee daanu mais am na ñoo xam ne bu ñu ko déggee taxaw ña koy déggee daanu nag sunu borom a ko wax mu ñu koy déggee daanu moo tax waxtaan ci pénc ma mel ni péncum Sénégal waaw aada yi dafa am yoo xam ne ñoom ñoo lay tënk ne kon nga misaal ne nangam nangam deux plus deux waaye fi ngay misaale ña daanu <laughs> ña misaal ma daaneel ñoo ñaar lay songo ndeysaan ala kulli xaal am na benn force boo xam ne force bu nëbbatu la ahlu tariqa ñépp gëm force boobu moo leen juraloon duñu ragal colonialiste yi duñu ragal tubaab yi waaw duñu ragal wéet ñoom dong duñu ragal bay dunde waaw bokk na ci liñ niroo ñoom sëriñ si màggal gu taalibe yi di màggal sëriñ si waaw jox leen cër ndax saxaaba yi dañu joxoon yonente ba cër moo leen tax a jëriñu ñooñ tey ñi it dañuy dañuy jox seen seen sëriñ si cër moo leen tax di jëriñu waaw ndax imaam Shaafi nee na baraada kaas moom na baraada féetu kaw kaas féetu suuf rek loo ko mooy dara du jóge ci baraada ñëw ci kaas mbokk yi buñ dégloo waxtaanu ajjuma wu samedi ak wu dimaas ndax ay tem la incha allah daañ teg sunu baaram fii nu ko tegoon tabaarakallaahu jaajëfal leen jégalu leen ñaan jàmm ci réew mi ak léewi kër